بما يزراه الأذهان قد فجاء بجاي أفضل من لله قد لجأ ربي بما يزراه الأذهان قد فجاء بجاي أفضل من لله قد لجاها ربي بما يسره الأزان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجا حمدي لرب قاري من لا شريك له وصدري اليومان رنساتها ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبي كل به كلا أدعو إلى إلى hamad ma waahibo li jumlatin xalqi ma man bara najeyto wo jalla wa man wakaramani wa kul li min laxan bari رحمة نهب لجميع الخلق رحمة من يغني حني سريما قرآن قرأ أدب مدى المصطفى عن كل مفسدة والجرع من الخلقايا من جدهم بدا أدم مدى المصطفى عن كل ما سداد والجاء من القلغايا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جلان خواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا موت ما خنات القلب من درر بجاء أفضل من لله قد لجا موت ما خنات والقلب من درار بجاه أفضل من لله قد لجا موت ما قد ناب قل قلب من درار بجاه أفضل من لله قد ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam noo ngi jaajëfal sunu sëriñ sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Khadimal Moustapha di ñaanal bu baax sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Ahad sunu borom yàggal ko fi te may ba lim yéeneen liggéeyal maamam sëriñ Touba mu def na mu ko bëgg te naan koog moom di bu baax jëwriñam ju tedd ji nga xamante ni muy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke mii ibnu Cheikh Moustapha Abdoul Ahad ibnu Cheikh Abdoul Ahad ibnu sëriñ sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal maamam Serigne Touba mu defe ko na mu ko bëggee te mu ànd koog moom kenn ku ne xam na ni bokk na ci sët yi Serigne Touba di damoo bu xëllëgee ndax moom da noon na zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyin Mustafa tajtahidu delloo waxaat ni sibti ka sibti rasulillahi aysu bada kon Cheikh Modou Moustapha yàlla na nga fi yàgg te wér mbooloo mépp yéene jëmm nga joo xamante ni ku la ne jàkk xam ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mooy sa maam waaye Cheikh Moustapha Mbacke Cheikh Abdoul Ahad ma mooy sa jëwriñ mooy sa way jur moom ngay doxe guddi ak bëccëg amoon lenn loo xamante ne moom moom lay yëngu lu dul ndigalul way jur wa Cheikh Moustapha inu Cheikh Abdoul Ahad loolu moo sabab mboolem ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad ñëpp weg la ngir sa